lu ñaareel sama sëriñ borom jannatul mawaa turam ku ne xam na ko awaay mbàkke yaa wéetal nu nun noo ngi wéeta sa dem gile mooy mbas kuy julli loolu yëg na ko dañoo mujj mel ni liir bu yaayam ja xëy ni mes mu dëkk di jooy kenn bunta nax ba mu bàyyi ko sëriñ saari woo baay ci ñun ñi telaw na ndey xanaa am misal rek la ko def daal ci xamle ko li tax duñ la mooy waaju baaxu masaa demee ba ñépp ni way fu ñu jëm balaa yàgg ko sëriñ saali woy kom noon fu ñuy jëm fu mel ni moom gannaawam du am moo mu jooje la jàpp ko bisam booba mooy ab bis bu dul fekk ci xel yi mukk keroog koo dajal jooy ca kaw yàlla xam na ko hmm. demam géeg demug yónneen ba ñoo bokk mel ni mbir lu mooy bamba bamba suñu nan leen ma wax la ko nasaaba ya fàddoon ba fàtte ni sun boom la ñuy jaamu dug yonnen Abubakar yi xam le ko jaga xew na maa gis li ñu sali di jooy ca kaw mu am waaju naa gëm leen borom bi ca tudd ko laajuma bis bu màgg ba gannaaw fajal la ba julli ba loolu du suba na màkk jublu penku ba boobee la bu yàlla yabal malaaka ye ma ne mu jël bu xam bu sell dem ko moom fu ne moom ba malaaka maa ngay naaw di béy waa asamaan ya naa ko cey leer ñi nga moo kër xanaa imaam bu ba guddi ga nag léegi war a siiw xibaar ba tas ñëpp ma mel ni dof bu ma tey eew ma bépp donga bu mu fi ba ñun ñëpp a mujj mel ni ay baay saal boo xam ne ak dundam ci weer la tollu nday jaxay ko réer mu yuuxoo te tawa ba julli di ñëpp a ngi sa ngéem muy di ñëpp a mujj luum ñeneen ñi sax ñëpp a ngi yéem sa baax ak li nga fi ba ñii a ngi jooy ñii a ngi tëb adduna bépp maase jëlee jëf si kal sa jub nekk naan say kuy sang ba koo gis mu naa la doy na waar du mën a sax waxo juleef xolam ba fees xelam ma réer mu dal ni jàll buntu ba nanu xalam gën ji mi ndéef dellu xalam man ji kon xëy na nu mën a diif nan dal sa bés suñ dal na ba waax nu ba sax kenn desul ñëpp a nga julli tatagal borom Seex Saaliw ba mel ni maa ngi lay ngay saawanteeg gan jinaar ak xaari man bu doy ba waar ci àjjanay firdawsi ba ñang lay jotal seeni ngërëm te noo la yow ndam li nga liggéey rek doy na ndam lislaam bi jël nga waaye ba waxal kanam tàndarma ya tàpp nga sangub xawsu ya ndamul ci mboolem pàkk ya leeral te yaatal xutbu ba tàpp nga koog liggéey na lool bu ëllëgee bañ di ko jàll ñëpp a jaxaj ba sax ñu dul ñu gëm boom bu tedd ba ku dee te sàkku luy sarax ngir xam bu wel ni mbir mu nax day bëgg a xew te dunu nax ci yàlla bu bu màgg ba ku dee di fab nit ku tilim fóot ba mu set sol ko ngërëm ba ku ko gis ni siiwa am jikkoom ya cey suñ sàng ba wàcc nga sëñ bi am nga ndam nopp lu jël kenn du la jam adduna ak foofee lu jam sa yoon du doog ba penc ba xam naa ne fuñ fi masanaal lu jëm ci diina sa alaal yooyu dem na ca daal diine ji naw na sa jiba ba nga ganee ci jël sin ba ni nga dellu xatta sin jaddoo fi yoonu sunna si te wax ji am naa firnde ba mboolem lu tàqalikoon ci gaayu baax ya fi ne woon daa dajaloo ci yow sëriñ saari wu doomi xaw suba lii dee waal ko laa woon ci yàlla mbaa sun yonan mbaa ci sëriñ bu mag ba woon yow seenatul sëppandi bi téere borom bi jooy na la nga xam ni kenn du la mukk ci moom seedal na la ni raw nga jël nga raaya ba sunnas yonan bi moom itam jooy na la nga xam ni du am ku mel ne yow ci kanamam ci yeesalaat ak say tuba xasida yaa ngi jooya ñoom ku leen di fonkatee kayim di jox ñu koy joo kayim lu xel dajul ngoon ak suba talbiya jooy na nee na wooy fu may jëlee ci sang buy dafa nit bañ leen di oy ci jaamu ak ci jàngu ba xel ko ma tuuba njàppu ndal ndoogaale gan ak ci bigel ngeejaan ko tax xambaan njurul am ngaa bu jooy nañ sang ba sa jikko moo di alxuraan kuy jéem a xuus gën bambulaan yendu di dem ak di fanaan du tax mu jot asaka ba adduna jiiboo fi maas foofu nga jëm itam sa maas du yomb foofa ndax sa sans yombu taam yow sang bi bu yàlla yàlla nag ñu fayal suñ waaja fóot suñ wàggi xol yow mi nga xam ne yaa amal lépp lu am ca dend ba bu yàlla ñoo ngi lay dagaan xaboom ba moom nay walangaan leer ak ngërëm la samaan ci barke sun yonente bi njaboot gi góor ki jigéen yàlla na yàlla sàmmu leen def leen imbir ci diine yéen yu kenn manul ci saytu ba taawam ba seex ahmadu yàlla na yan bu diis ba mujju mel ni mbaxanaam ba mu matal mi biti baay bu tedd ba Cheikh Moustapha gaynde ga cam yal na ko yàlla may ndam yàggal ko bam def mébétam ci diine de tariixa ba sëriñ Basiiru Mbàkke na dem bañ di ko yéem ci gudd fan ak may goom ci barke sun wasiila ba sëñ Jiili Mbàkke yàlla na dem ba ñëpp yéem ko ci mayam tem gudd fan te wéetam ci barke sun yonente ba Cheikh Murtada yàlla na am fa buuy buuy ay ngëm wér gi yaram ak gudd fan ak may yu jéggi doya ba bu yàlla ñum dongaam itam yàlla nag ñu may ay ndami ndam ci sëñ bu mag juwaajoom ëllëg ca bis bu mujj ba ku ne ci ñoom na ami koom yu yaate lew te doon boom ngërëm yàlla sul boom te yàgg lool ci denn ba innal muna sayxi bi kafay kisabitatun lii tax ba ñu soxla daw ñëw bi noo ngeeti képp ci ñun na nga faj aajoom ca faj ga ca war ba saa yu delloo seeni kër dootuñu tayeeti nga seex si yoon wu mag ba gaawoon mm-hmm. képp ci ñoom dem na xel koom muy faas tuuti baanaab patamu mus la génn këram xus na ci xaaxaam bi tey yaa ni ngay woote léeg nga gis ci mar léeg nga gis tilim te lii du woon lu ñu miin bii saa bu ngay foote ku ñëw di sàkku si xam-xam min ulumikum nga duy ndabam ba mu fees ba dootu laaj seeti ku ñëw di sàkku si am-am mbaa palaasu liggéey nga def ko ab fonctionnaire boo wee mu ko neex noote ku nekk yor paaka mbaa njóobaan ak ub bidongam ba paaya daa dam ya sax ak paaya daa yoote Seex Muntaxa waaye Mbàkke yàlla na nga sax téeméeri at yu tofal ci sun kanam dinu aar ci lépp luy joote Seex Muntaxa waaye Mbàkke yal na nga sax téeméeri at yu tofal ci aar ci lépp luy